Heavyweight.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 Ndiaye collaborateur u Kocc Barma la di borom sit bu bon boobu di sene porno ab prédateur sexuel dëgg la dëkkee woon a rëbb jigéen ñi ki ya waa ji ay compte Facebook yu bari la ubbi woon am bum ci tuddee Simone Sandare def ci photo européenne dañoo bari pexe de sawaay dalay envoyé ay demande d'azudami soo ko accepté mu defal la proposition ne soo ko envoyé say vidéo taatu neen yu bon dina la jox lu toll ci cinq cent euros xaalis maanaam trois cent vingt cinq mille francs jigéen ñi mu ci kapatal nag bari ñu am na ci ay guinéen ay malien ay ivoirien ak ay sénégalaise co ma ne jigéen ñi bëggul lu baax dong la ci jàpp te baax na ci ñoom ma ñi daanu ci piège waa ji laa wax gannaaw bu tëddee ak ñoom ba noppi da di mujj di santage ñaw di leen fayloo xaalis te ku ko ci fayul sawaay dalay menacé ne soo ko joxul xaalis dina publier say vidéo ci site bu bon boobu di sene porno ma ne baax ma ci laa wax xaalis tax nga ne dungu envoyé say vidéo lu la dal yaa ko teg sa bopp sawaay nag daanu na section de recherche bu gendarmerie ñoo ko daaneel fole ca Kébémer fekk mu ngi amoon rendez ak benn victime am waaye lu bon kenn mënu cee dëkk li ci gën a doy waar nag mooy waa ji am na ay jabar ëskëy ma ne es ñas moomu am na ñaari jabar laa wax sa waay nag nee na li tax muy def lu ni mel déglu leen bu baax de mane sa waay nee na li ko ci dugal mooy moom daal dafa nekk koo xam ne dafa bëgg xaalis ak xale yi jigéen ñu rafet ñi ay waay samba réew me neex ma ne nag ñu mel ni ñoog ma xayem bant bu ñu dugg lekk ko ba mu jeex takk waaye tamit ñu mel ni buñ leen bàyyee cim réew danañu yàq jigéen ñi mi moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax gendarme bi nag moom li mu def ëpp na di teg nit ñi ci yoon ba noppi xëy jàdd yoon bari na fi nag de Babacar Niang di gendarme a service a la division transmission informatique ca caserne Samba Diéry Diallo Colobane ma ne placé nañ ko sous mandat de dépôt ki ko def nag mooy le doyen des juges ma ne nul n'est au de la loi pour corruption et extorsion de fonds waa ji da doon profito ci estati takk der bi mu nekk di laaj xaalis nit ñi muy dajel ci mbedd mi te takkuñu masque nga ni cay corona ma ne du moom am na ab complice bu mu ci àndaloon buy wuyoo ci turu Abdoulaye Diallo mbir mi nag mu ngi xew le 18 août bi weesu géejawaay ca cité enseignant sa waay 3000 francs la laaj boo takkul masque ma mm, waay te ma ne la boo ko fayul ci saa si mu menacé la ne dalay embarqué par la force bu ko defee nga tiit fay ko réew mi xeetu ni ñuy sàccee moo bari te it ñi war a doxal yoon ñooy jàdd yoon moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca kër sëñ bi doy na waar ab xale bu jigéen bu am 16 ans boo xam ne dañu ko ëmbal moo fa am doom ba noppi sànni ko ci mbedd mi ëskay xale boobu nee nañu jàmm gën la jógee xëy dem ndakaaru bi mu egsee côté kër sëñ bi ca cérémonie Blaise Diagne la sànni doom ji ci mbedd mi ay waay ndekete bi mu koy def nag am na waay bu doon jàll gis ko bi mu tegee xale bi ci mbedd mi bay dem waa ji topp ko dal di woote ñu teg ko loxo waaw góore waay ma nga ca police bu rëbës ñu teg ko ci loxoy brigade des mœurs ma ne lu ni mel tamit moo xew fole ca mbëbës ab neewu liir buy door a judd la fekk ci mbalit mi la ilaha illallah ci état bu jéggi dayoo ba sapeur yi yegsee ma ne sur place la ñu ko denc ndax melokaan bi ñu ko fekkeel ay waay ana yërmande réew mi nag da ngay taxawaalu ba mu neex kenn du wax dara nga dëkke nekk ci la la neex kenn du wax dara muy neex ba dàq neex nga xëy am doom sànni ko mbaa nga ray ko am ñu koy utal alibi moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca mbuur doy na war ab professeur EPS la ñu ne moo fa yàkkataan lu ëpp téeméeri xale yu jigéen nga ni ma kii de mooy champion nag mu ngi xewee ca quartier Médina ñu ne ay ata ngi nii professeur u yàkkataan-kat boobu làqatu ci ginnaaw gëm lu yàlla ak baax-baax lu noonu la ñuy def nee ñu foo ko fekk ma ngay gàtte xale yi ne ci seen biir ndekete woo sawaay liggéeyam dëgg mooy yàq xale yi te it nañu professeur EPS boobu yàgg na def lu ni mel <laughs> déet waay mës naa yegg ci benn xale bu jigéen ba gaañ ko laa wax boobu ak léegi toll na ci ñaari at ñaari famille waxtaan ba juboo nëpp nëppal ko ñàkk fayda yu ni mel moo tax yi di yokk waaye kaa bu melaat noonu moo ko mujj daaneel daal laal laalaake ma ne waa yi bu doon ciblé juróom-ñetti at fukki at ak ñeent waay kii pédophile la sa waay nag mujj naa daanu li ko daane mooy dafa yegg ci ab élève am bu ndaw blessé ko ma ne kii buñ ko génnewul école yi dana rey xale yi de xale bam ko def daa mujj feebar dal di yoole professeur yekk taan ay paanaam waaw góore waay xale yi de leen wax ñu porte plainte ko yoon teg ko loxo ñaw gannaaw ba ñu ko tegee loxo nag la ñeneen ñu bari ñu mu ko doon def dal mujj wax ma nag sa fi ko yëf yi dal dalee métti na ak loi bii ci wàllum viol moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax kii moom ab xale bu jigéen la ab basketteur moo ko ëmbaloon ëmb ba neexu ko ba mu amee doom mu jam doom ji paaka def ko ci saak sànni ko ci mbalit kay waa lii am na ci réew mi xale bu jigéen bi def jëf ju ñaaw jooju nag la ne ren moo am baak fekk mu ngi ci biir kaso bi ndeysaan am doom rey am bak dëkk réew mi li fi nekk kenn mënu koo wax mu doonoon seen xibaaru buzz ci seen émission buzz dig daje samedi yeneen xibaaru buzz